ce 4 février à l'arène national ñu ànd ci ak Gaston production ci diggante ñaabu ndaw Zarko ak claf bu doy waar soo ko bëggee seetaan nag ci seen affiche point com ngay dem demal ci sa navigateur nga def www point seen affiche point com di nga jàkkaarloog événement Zarko ak ñaabu ndaw kilikil ci événement boobu nga am ñaari option d'achat pour yéen ñi bëgg jënd ak seen carte bancaire wala yéen ñi bëgg a jënd ak Wave wala Orange Money pour yéen ñi bëgg a jënd ak seen carte bancaire ci achat ou connexion bu fekkee ni musuloo connecté wu ci seen affiche point com dangay ngay bës ci inscription nga créer sa email ba pare confirmer email def sa tour ak sa sant créer sa mot de passe ba pare confirmer waat mot de nga bës ci suuf foofu ñu la bindal j'accepte les conditions su loolu weesoo nag da ngay dem ci beneen phase bi nga xamante ne nii données yi nekk ci sa carte bancaire bi nga fay remplir bindal sa tur complet nga bind numéro bancaire bi date d'expiration carte bancaire bi ak sa CVC bi ne ci ginnaaw carte bi bu loolu yëpp weesoo di nga mën a valider li nga xamante ne ni mooy sa paiement ak sa carte bancaire wala boog bu fekkee ni danga ko bëgg a jënd ak Wave da ngay bës ci logo Wave ci saa si dina la yóbbu ci page bi fi ñu bind payer avec Wave mu laaj la sa numéro de téléphone ba pare nga confirmer waat numéro de téléphone bi même numéro de téléphone bi ngay jëndee pare nga bës ci suuf payer par Wave mu yóbbu la nag ci application Wave nga confirmer foofu sa paiement mu daal di lay delloowaat nag ci seen affiche point com nga fekk fa combat Zarko ak ñaabu ndaw mais aussi di nga jot benn SMS Wave buy ànd ak lien wu combat bi ak adresse ak mot de passe ma seen. jërë ngeen jëf ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare ñoo ngi nii jàkkaarloo ak ñaabu ndaw à une semaine du combat moom ak ki nga xamante ne mooy Zarko wala cinq jours du combat mu nekk ci wàccaay bi nekk ci dernier réglage yi seetaan nañ ngeen Zarko nag. la nga xamante ne wax na ko ci digganteem ak adversaire am ñaabu ndaw moo tax tey ñu ñëw fas yéene waxtaan ak moom ci combat boobu noonu di wax nag ci kanam tuuti moom la open press am di mardi bi fële nga xamante ne moom mooy Stade Amadou Barry ah fa nga koy defee waat maa ngi lay bëgg bu baax a baax di la ziare bàyyi la nga ñu lay seet. waaw ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi sant ba sant sama ñaari waajur sant maam ci na borom daaru xam nga di nuyu waa Sikori waa Thiolli sama dëkku papa di nuyu waa Diofior waa Sikap xam nga waa Kër Sina sa bu waa Tiwaawoon xam nga waa kër maam bu ñëpp maa leen nuyu bu baax a baax di nuyu àdduna di la nuyu yooyu. à cinq jours du combat naka moral bi Niang Bou Ndaw. waaw naaj naaj na parce que moom lu gën a bon mooy nga yéex a jug mais làmb moom boo teel a jug moom da ngay pare yow li daa mënul ñàkk rek damaa xamul mu lay def rek mais moo loolu pare nañ bu yàgg. mais moral bi lépp naaj ah, sax moom benn. ay xale lañ dañuy liggéey parce que fi ñu jëm moo gën a métti te fi ñu jëm ra ragaluñ ko quoi. waaw fi ñu moo gën a metti fuuf waaw su ma da su ma daanee Zarko man man fi ma war a dugg moo gën a métti. ndax bi ngay bëree ak Bour Sine ba pare yaakaaroon nga ne Zarko mooy nekk adversaire ñaaw. waaw noonu xaw ma woon moom la mais xam naa ne combat bu métti laay bëri waaw parce que doo daan Bour Sine bëri bëri combat bu yomb parce que Bour Sine rek jàmbaar la waaw doo ko daan bëri am combat bu yomb parce que boo xasee ba daan Bour Sine rek maanaam yow say morom bàyyi nga leen fi quoi yaa ngi ci beneen bi. mais xamoon naa ne combat bu métti lay bëre mais xamoon woon na Zarko la. combat bi kon combat bu métti lay doon. combat bu la noonu mënul yomb. lan lan moo war a métti combat bi ci adversaire bi wala yow yaa yaa am loo bëgg a wane. man maa toll foofu ci làmb dama faa dama faa toll quoi damaa wane sama njàmbaarte bu dugg fi nga xamante ne nii tey a bëre foofu yombul waaye foofu yow yow ku ku du coomo doo fa egsi coomo doo egsi foofu. yombul aussi parce que adversaire bi nga mujjee bëreel wala a bëreel dafa am def ay performance yu doy waaye ci diggante bi mu defee retour am ak léegi noonu loolu tamit bu ñu ciy sukkandikoo mën nañ jàpp ne combat bi du yomb. waaw du du yomb du combat bu yomb man comme ni ni yëpp taxawee ma laa bëgg nañ jël lépp jox ko Zarko moom mu nekk favori nekk lépp man aw ma dara sens ci combat naa gars yu bëri nañ aw ma sens ci combat loolu laa bëgg mais lu ma maanaam bu la kenn xamul nga xam sa bopp. loolu day def yow pression wala daf lay motiver. ma yokk jom jàmbaar laa. jom la may yokk su la kenn xamul nga xam sa bopp bu la kenn bëggul yow nga bugg sa bopp bu la kenn gëmul nga gëm sa bopp mais ñun naa kenn bañu ñu quoi mais exemple laay joxe yaa ngi gis waaw man ma xam sama bopp xam naa may kan xam naa bëri fu ma ko jàngale ak li ma ci daj man xam naa mais mais maanaam ñu xamul ñaamu ndaw dañoo dem ba ñaamu ndaw siiru ñuy gis ñaamu ndaw eh ñaamu ndaw mais man fi ma jaar si làmb xam naa ko bu baax làmb tarbiya naa ko bu baax. xam nga di nuyu waa Jofior bu baax di nuyu sama doom day sama doom day obbali jàpp si combat bu baax jàpp na si bu baax si contact yi waaw taxawuma dooleel ma moo xam nga ñoom ëndi ngaa xam nga ñoom bada xam nga ñoom jaga doole waaw kon si contact yi daal gars ndax coow coow coow Zarko ñaabu ndaw attan parce que gis naa ni yaa ngi ko bëgg a fekk ci rythme bi nga xamante ne moom moom lay doxe loolu da nga attanul coowam pression moo tax ngay def loolu noonu wala da nga ko war ne xale nga rek. lu mu woote moom da nga ko ci fekk. xam day toll foo xamante ni maanaam journaliste yi itam il faut ñuy xam nga ñuy li nekk waaw waaw parce que dañ maa woo signature jox ma blouson jox ma sponsor yaa ngi dégg mais damay dem foofu toog di xool Zarko di ko raayal sponsor bu ma sol dama dem ma pour jaay marchandise bi dama dem pour pour pour jaay bis bi ma jëm mais signature contrat ak làmb du benn signature laa dem damay dem si signer dañu maa jox dañu maa ne ma ñëwul micro nga téye pour wax nga ñibbi waxuñu ma kaay bëri mais laa ma ci damay indi li ma a indi sama combat ak Bour Sine ma gis si biir géew bi di fëri fëri mais te nit ñi dañ lay gisé dañ lay gise te yow du la suivre bu baax sama science yi maag rëm nu demee woon maag Bour Sine nu demee woon dañoo dalante man ak moom mbëkkante defante lépp mais gars yi dañuy bàyyi ba nga toll foofu rek ñu commencé laa bàyyi xel mais duñu xool sa passé si ginna mais euh, signature bañ la ci wax luñ la ci war a wax. maa moom ñu jaay làmb ji kese dafa ñu fa lu dépassé. waaw dama ne lan moo lan moo tax nga fekk ko ci rythme bi mu nekk. fekk fekk moo ci rythme damaa ñëw pour signer contrat du rythme signature contrat lañ nekk. ah moomul terrain bi yow. terrain bi ñoo ko bokk ñoo koy séddoo mën a moom. 50 50 la te moom mooy mag lu mu dawul du ma ko daw man xanaa laa moom bu amul respect ci man du ma am respect ci moom dama ne moom seq ñu jàmm noonu la noonu la war a demee sax ku sequt ak jàmm kay boo leen bëggantee kat yéen a a mooy loolu ku ah. kon lu ci bañul bañoo bañu ma si dara bañu ma si suul làmb jëg waaw bañu ma si tus xeex lépp laay def bëri li ma waxoon ci Bour Sine laa lay waxaat nga ne ma ñëw xeex ak Bour Sine damay taxaw xeex ak Zarko xam nga loolu moo laa waxoon ci Bour Sine te damaa taxaw xeex moom si ñëpp ni ma làmb doo si génn amoo ci sens. ñu naan la amoon ci sens parce que ñi mujjee daan bay guy gi aara faas bàyyi ma njoon ba ci jéen ki dem démboo njaay loolu tamit est-ce que du yaa ngi seetaanaat combat yooyu xool xool ñooñu lu leen xañ. ay champion lañ mais maanaam maag ñoom duñ benn gëm-gëm yi du benn ambition yi du benn bëgg-bëgg yi du benn entraînement yi du benn fit bi du benn jom du du benn duñ sax benn maag ñooñu ça fait deux bokkuñu bokkuñu taxawaay bokkuñu dara waaw. Zarko bu sëqee nga sëq ay pàdde yow daaneel. man 200 kilos lay squat kenn du ma jàppal wàcc ba suuf 180 kilos wàcc ba suuf man li may teg sama bopp amul sama benn morom bu koy def si lama ji ba benn mbër sama génération ku ko si def feebar. waxuma sa génération Zarko laa wax Zarko ci boobu. mag la. mag boobu daan xale yu ndaw Ada Fass di xale comme yow. mag ñun duñ benn man li may def dama kaa ñeme nekkul si ay plateau nii dama dama ko ñeme. maag Zarko buñ bu daje woon fii dañuy xeex léegi léegi te mu ngi doon mu tuus si mbedd bi kon Zarko lan lay bàyyi xel ci moom. nee na nga am pression. pression lan. lan la wax nee na ngaa tiit. bàyyi loolu waaye moom demaat bu mu nax boppam bu mu nax boppam man amul benn pression man xanaa laa damay liggéey moom moo am pression ma làmb ji amu ci pression moom moo bëggoon dem ba si biir bëgg a yàq làmb ji bëgg a bàyyi bëgg daw bëgg a ñëwaat man ba pression laa am. seetaan nga ko yaakaar naa nee na da daan mu pare nag presse yëpp lay woo. dem ba buntu kër ñoom Lac de Guiers numéro 2 ni ko bëre force bëgg bëre bañ. daan dara man maa koy daan su paree xam nga ba defal ko ci borom daaru dem fee sikóor yi dina ko ndomba baat décoré ko na ko maa ngi jégalu ko daal du dem fenn du def dara. du def dara. du ko def du def du daan kenn. lan ngay wax waa diaspora bi ndax seen combat seen affiche waaw waa diaspora bi di leen woo rek di teel a jël nga leen di dikk boobu noonu xam nga ñoom dañuy teel a jot image yow avant ngay dugg si laa mu ñoom ñu ngi seetaan direct bi la man damaa xajam man sama njool bu soofoon waa Guèye waaye nga teg samay tànk sànni man sama njool sooful yaa gis ma làmb dama kaa mën dëpp ma nekk xale ba léegi làmb rek laa xam ko ma dara lu làmb maanaam làmb sama deret la nekk su ma ñëwee naa tous mu neex dinaa ambiance dinaa mën a jomm Lamine ma laaj la man ba ma daree bëre si biir géew ba léegi parce que maa gis moom moo ne dara lu ñàkk fayal ci làmb waxal si micro bi. non gise non man dooma laaj gisaguñ ko laa la wax gisaguñ ko waaye waaye ki ngay bëreel moo yombul te bëreel bu ndaw. du saafara Zarko du ñebe Zarko du naajo du ko waaye du sax naajo laa la wax Zarko yéen lay tax seen esprit yi fi dañ ko woo séance du contrat bi dem mu daw. Ah, non non yow man ruux ruux kay amu ci. parce que su signature bi nee na seen buntu kër ma seen. waaw mais moom moo ne woon bu Sénégal di guerre bu bu kenn woo booy déglu. waaw moom moo woon bu Sénégal di guerre bu kenn dem moom ko seen a dem ñu woon a signature contrat Pikine nga daw bu la jóg man man non ma dama loolu mënul nekk dara ko sañul daw dafa feebar. feebar <laughs> dama ah mais sax wala am ñam bu rëy bi yëpp yow man ak moom man ak moom man ak moom man ak moom suñu face à face bu njëkk bi fële la gën a jege Grand Yoff la gën a jege di ah n'est-ce pas wala dama damaa dem yow ñu wala Pikine bii Pikine wala ñu waxoon ñoom ah Mbale boobu ak ah, ñoom Boye <laughs> Boye bañ gaa yi ko ko tapet la. ñëwewul man barki maam coono borom daar bu ma yàggal combat bi ma jëm bu si di bu nekkoon biir Grand Yoff ma ñëw. ok li may mujjee ak yow mooy dañu gis ñaabu na bu teel a. man la yéen ngeen di jaaree Soomaan ak am fit. ah moom kay nee na Sénégal na ñëw ndax lim la bëgg a def. yow ñu woon Pikine bi ñëwoo nga armée Sénégal. ah na. armée Massa man damaa rus. nee na fecc rek nga si moom ku ma toogoon bu guddi ñu ne ma Zarko dina la woo signature Pikine mu ñëw du ñëw du ma ko gëm. waaw déglu ma fii. ñoom bu rëy bi yëpp. nee na yow nee armée Sénégal dañuy woo ñu signature contrat Pikine. non moom Sénégal maanaam pour yow ñu ñu ñu ñu yow noonu lay woo looy looy waxee nit ki dañ ko woo Abba Sénégal ñu woo la Pikine na nga woo ñëw sans télé bu mag man dëkk mu Pikine di dama koy dem woowuma kenn parce que Abdoulaye Ndiaye dafa ma woo téléphone na ma bu la kenn topp ma kenn pour moom booy ngay koy koj. booy kenn mu woo ko loolu la mu def yow nga si yow nga signé kii du jàmbur lekk xaalis jàmbur ñu woo la face à face ngay daw ba pare boo toogee si micro yi di la tapet rek làmmiñ soo man la yéen lay dox seen esprit yi. làmb dañuy nax làmb bu ñëwee du tës a xeex ak man day jéem a teg xel. Zarko damay nax. moom làmb bu ñëwee day jéem a teg xel jéem a naxante xool nu ma jéem a jumloowee billaay du xeex ak man. léegi beneen question bi may jeexale ak yow mooy dañu gis Niang bu Ndaw bu teel a osé ci côté entraînement ci côté def boppam yóbbu boppam niveau boo xam ne peut-être sax tey peut-être eggagu fa loolu ci yow la wala sa say fan sa club. ñoom ñoo la poussé pour nga def loolu noonu parce que gis nañu baas yi bari nañ géej waaye osé nga dem stade Amadou Barry te loolu dañ la ci encouragé mais loolu yow la wala fans waaw loolu dama sant waale dama sant waale xam nga Dieye Sène Abdoulaye sama père góor yombul ñoom dund xam nga ñoom njawar xam nga ñoom mooma njaay sama staff yëpp maanaam gis ma la waxoon sànq rek bu xamul yaay xam sa bopp quoi sport dafa dafa dafa dépassé fenn fi danga war a garder sa image xam yaay kan wala bëra benn benn ay cimbir cimbir ngay def lu lay xeebee osé gëm sa bopp gëm na yow lu nit am war nga mën a am da ngay man sama combat sama combat maag Bour maa ngi bëree cent vingt cinq kilos mosuma ko wax nit progrès dama fayal sama bopp sama xaalis bi di ma fay man man xaaruma ko jël sama xaalis dagal sama bopp billet dem jëlee sama bopp néeg ma dëkk di fay taxi un mois moo yóbbu salle mais entraînement nit ki li ngay liggéey da nga maanaam yow bu ci nay del jël di investir seen di sol yére yu baax di sañse ku la gis naw loola loolu mooy mbër mais bu ñu jël mbër ba ko dëkkal fenn fi mbër noobul la mbër mbër VIP la xam nga képp kuy mbër dama lay ñaan rek comme comme man comme man ma koy joxe nga koy joxe noonu da ngay sumé da ngay dem mais mbër laa rek daf yëfu dof kërti kërti man il faut oser waaye ma dama am staff lu may wax bala maa def bala maa wax dañ may woon na ma lii ak lii ak lii ak lii ak lii waaw oser loolu lu mu la wax waaw ron nee na ma dal rek sax xam nga sax xam nga dugg si biir géew na ma bëreel nii man moom lu ñuy liggéey waaw lañ koy koy liggéey mu jeex su ma ñëwee si may wax topp sa ginnaaw bëri na. dund moom damm na te dara xewagul. waaw yow ku la dundaa damm foo ko gisee. ma gis ko keroog signature bi maa ngi foon. non dund dara dal ko <laughs> dara dal ko. waaye yow doo ma bàyyi nga naan ma dara dal ko dund ma. dund dara dal ko dam damay bañ rek. làmb ja dam. beneen loxo bi ci kii. la gën a bëgg di nuyu sama doomu ndey Njawar xam di sant waa Guédiawaye yëpp waa Gounass xam nga moo sama góor di sant waa Guédiawaye waa Gounass di leen wax sama ëppante presse bi xam nga stade Amadou Barry la suba la suba. open presse bi la ah tey jeex na ah ok aca boobu. léegi nii la. open bi non di nuyu sama père góor yëmbul tisi bu baax waaw combat bi netaan def na si xaalis bu bëri Modou Gueye maa ngi koy woo bu baax Modou Gueye bu Pikine waaw Modou Gueye bu pikin sant naa ko bu baax waaw sant naa Modou Gueye Modou Gueye maa ngi koy waaw maa ngi koy sant Modou Gueye sant naa ko bu baax baax baax jàppale na ma taxawu na ma bu baax Modou Gueye yaa ngi gis maa ngi nuyu Bécaye BBC xam nga Dioum Gueye maa ngi koy woo Dioum Gueye sama papa Dioum Gueye ñoom Baara Gueye Queen Ewel ñëpp maa ngi leen woo sama papa Massata Ale xam nga maa ngi woo bu baax a baax maa ngi woo tam sama papa Lamine maa ngi woo Lamine xam nga di woo sama papa préfet ak commandant Ndoye di ko woo mu ñëw indi sami liir waa maa ngi koy nuyu bu baax a baax di sant sama tooma waaw sama tooma maa ngi koy sant bu baax bu baax sama tooma waaw di nuyu Cheikh américain xama di nuyu Serigne Gambi bu baax a baax a baax maa ngi nuyu itam Modou Modou Modou Ndiaye ko wax sama doom day Guèye Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax yaa ngi gis xam nga waaw maa ngi sant ñëpp sant naa ñëpp. sa waay tooñ na Lirou Diane de Zarko nee na Lirou Diane dof la làmmiñam rëy na. maa ngi maa ngi maa ngi nuyu mécanicien deux roues yi. mécanicien deux roues yëpp maa leen woo su ma su ma pamperes maa leen woo. Ah. lan la. Lirou Diane Zarko nee na Lirou Diane dof la làmmiñam rëy na. man maa koy fajal dama koy fajal. maa bëgg xeex ak moom ba pare doo ko bëre ak moom. kon ba ba ba la kat. incha allahu rabi ci kàttanu yàlla kontaan naa si yow. yow yaa sañ lii. ce 4 février à l'arène nationale ñu ànd ci ak Gaston production ci diggante ñaabu ndaw Zarko ak claf bu doy waar soo ko bëggee seetaan nag ci seen affiche point com ngay dem demal ci sa navigateur nga def www point seen affiche point com di nga jàkkaarloog événement Zarko ak ñaabu ndaw kilikil ci événement boobu nga am ñaari option d'achat pour yéen ñi bëgg jënd ak seen carte bancaire wala yéen ñi bëgg a jënd ak Wave wala Orange Money pour yéen ñi bëgg a jënd ak seen carte bancaire ci achat ou connexion bu fekkee ni musuloo connecté wu ci seen affiche point com dangay bësti bës nga créer sa email ba pare confirmer email def sa tour ak sa sant créer sa mot de passe ba pare confirmer waat mot de nga bës ci suuf foofu ñu la bindal j'accepte les conditions su loolu weesoo nag da ngay dem ci beneen phase bi nga xamante ne ni données yi nekk ci sa carte bancaire bi nga fay remplir bindal sa tur complet nga bind numéro bancaire bi date d'expiration carte bancaire bi ak sa CVC bi ne ci ginnaaw carte bi bu loolu yëpp weesoo di nga mën a valider li nga xamante ne ni mooy sa paiement ak sa carte bancaire wala boog bu fekkee ni da nga ko bëgg a jënd ak Wave dangay bés ci logo Wave ci saa si dina la yóbbu ci page bi fi ñu bind payer avec Wave mu laaj la sa numéro de téléphone ba pare nga confirmer waat numéro de téléphone bi même numéro de téléphone bi ngay jëndee après nga bës ci suuf payer par Wave mu yóbbu la nag ci application Wave nga confirmer foofu sa payman mu daal di lay delloowaat nag ci seen affiche point com nga fekk fa combat Zarko ak ñaabu ndaw mais aussi di nga jot benn SMS Wave buy ànd ak lien wu combat bi ak adresse ak mot de